mbokk internet yu Topp Info TV Sénégal asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen te di leen dalal jàmm ci seen rubrique yoonu màggal gi waaje 18 safar ñu màggal ku tedd ki Serigne Touba Xaadim Rasool tey nag ñu leen xamle ak premier xalifa bu Serigne Touba Serigne Modou Moustapha Mbacké kon ñu reportage bi ak Ousseynou Topp gane àdduna ci dëkk bi la di daaru salaam ci atum 1888 doomi Serigne Touba Khadim Rasoul ak soxna Aminata Lo Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke doore njàngum alquranul karim ci loxo nijaayam Serigne Ndam Abdourahman loo gannaaw ba mu ko wëttoo jàng na science religieuse ca Mam Thierno Birahim Mbacke laata moom mottale am njàngam ci weti waajuram Serigne Touba daan na ànd ak góor gi daan ko wettale yi tamit ci ay tukkeem bokk na ci ca Mauritanie ca Thiéyène ak bi Serigne bi nekkee ci résidence surveillée ca Diourbel fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet 1927 ci la waay juróom wu góor wi delloo ca barsàq naa fukki fan ak juróom ci boobu la weer ak ci même at mi ci la ko tabb moom Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke mi njëkk nekk xalif bi jiite yoonu murit gannaaw Serigne Touba Xaadimu la bi mu toogee nag li njëkk a doon yitteem ak yéeneem moom moo di fas yéene mottali li waay juróom wu góor wi la amoon yéene daf ko ci dëkk bu sell bi la ci Touba xàll yoon wi bàyyeeko ko Jurbel ba Touba te xeer wu njëkk ñeel juma yi Touba Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke génn àdduna fukki fan ak ñett ci weeru juillet 1945 ñu denc ko ci Touba ci wetu waajuram Serigne Touba Xaadimu Rasul ñu koy ñaanal yàlla boroom bi woyefal suuf ci kawam ca yokk ay leeram. waaye laataa loolu ñu leen di ñaan ngeen di wéy di abonné ci seen seen YouTube l'espoir de toutes les générations Top Info TV Sénégal wa ilaa liqaa'il qariib